sénégalais yi asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi leen di jaajëfal ci topp bi nga xam ne yéen ak ñu koy topp ci biir internet bi tey nag dañu doxante woon caaro yi fekk fi ay artistes comédiens yoo xam ne nag am nañ ay jafe-jafe lool ndax gis nañ artistes comédiens yi kat dañuy souffrance yàgg bigal sénégalais yi waaye ku ci feebar sax dañ lay ketal artistes yëpp di ko méttulu ñu bàyyi leen ngeen seetaan reportage bi ñu leen defal si yëf yi sëñ bi maa ngi lay nuyu est-ce que mën nga ñu wax yaay kan waaw maa ngi maa ngi lay siyaar bu di la xam man la Fodé artiste comédien ñu gën ma xam ci Fodé dina ma neex waaw. lan moo waral seen daje. waaw suñu daje bi mooy association UDAC Union pour le développement des artistes comédiens du Sénégal Tan Bombe di président man mooy vice président bi te defe naa li ñu wax ci UDAC defe naa ne boobu ba léegi dégg ngeen ko muy développement social ak ak solidarité moom la ñu woote. léegi nag li tax ñu woote loolu mooy ne dañoo gis ne artistes yi waa depuis bi ñuy liggéey ba léegi moo ngi bëgg a yàgg yàggul. mais comme li ñuy gis ne chaque tout le temps rek ci suñu parent yi wala ci suñu mag ñi nga xam ne ñoo fi ne bu kenn feebaree ñu lay laajal ndimbal loolu la ñu bëgg mu mu mu jógee fi parce que nag li ñuy liggéey nekk na liggéey boo xam ne liggéeyu xel la kon lépp lu ñuy def rek ci xel xel lañ ciy jiital moo tax ñu créé association bi nga xam ne yàqul dara daal ci ci yeneen association yi. waaw man maay Adama Ndiaye artiste comédienne en même temps animatrice. maa ngi bokk fu ñuy même temps aussi aussi maa ngi IDAC chaque jour bu ñu feebaree dañu leen di ketal bi nga xamante woo nañ ma ci artistes yi dañoo bëgg mbirum ket jeex fi man dama ko rafetloo parce que nag li ñuy liggéeyal société bi ñun comme ni ma ko waxee sànq sama biir kàddu waroon nañoo weesu tey di feebar ñu di ñu ketal ndaxte réew boo dem ci réew yi nga xamante ni dañu xaw a développé wala pays sous développé yi comme ñun tey ci tey seen état tey mooy jël say décision en mais artiste bi dina am kër artiste bi dina am dëkkuwaay bu baax artiste bi dina am ku ko couvrir ci eh, yaramam bu tawet comme nag ñun loolu yàlla dénkuñu ko tey yàlla ñu tey ay tët yoo xamante ne ku mel ni Abdoulaye Ndiaye moom laa mën a lim ak ñi mu àndal en globalité tey ñu nekk ñoo xamante ni yàlla dafa dogal ñu jox leen ne ñoom nañu waxtaan xool naka la ñuy def ba artiste bu feebar ci dootoo am jafe-jafe defe naa ne loolu képp kuñ ci woo tey te nga bokk tey ci li nga xam ne mooy suñu métier bi loo war a rafetlu la parce que nag dañuy wax ni ku waaxul ñëwit di nga daw ñëw mais bi nga war a tollee waaxu ñëw Euh, nga war daagu ñëw balaa daw di la ca te li ma gis ci Irak d'une na ma parce que euh, am na structure boo xamante moom la ñu teg car macha allah pour artistes kenn dootul am jafe-jafe macha allah vraiment loolu dañ koy rafetlu fii ci Sénégal. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp. waaw yaakaar na ma ne man la maay lébu waaye yaakaar na ne Sénégal gi yëpp xam nañ ma monde euh, bokk nag di nuyu ñëpp di nuy tele bi euh, vraiment euh, di rafetlu tamit seen teewaay. waaw tey nag idag la buñ ne idag nag moom ci ñu indi ko ci olof mooy maanaam danoo mànkoo pour di jàppalante sunu biir ñun artistes yi pour xool lan moo jëmale kanam. ak lu ñuy avancé loo loogu moo waral ñuy def IDAK waaw parce que euh, IDAK nekk na loo xamante ne lu am importance la si artistes yi ndax tey jii dinañu permettre doo kenn ku feebar tey jii dootuñu demati si hôpital yi di ñaan wala di dem di expliquer ñeneen wala keneen dañu xamal ñu ne nag dañuy créer loo xamante ne képp koo xamante ne feebar nga yaa ngi dégg IDAC dina ñëw taxawu la àndax yow mais ci kaw nag nga nekk membre IDAC membre IDAC bi nag euh, dafa yomba muy 1000 francs ngay joxe par weer loolu dañ koy jënd pendant deux ans deux ans boobu bu dajoo nekk dara ñu mën a jël euh, somboogu mën si di commencer dimbali nit ñi léegi nag si biir loolu bu fekkee leneen dab nañu si diggante bi ñun dinañ génn sunu xaalis fexe duñu la jàppale ak leneen ak leneen ak képp ku am problème ak problème boo mën a am te ngay membre IDAK nun dinañ taxaw pour jàppale la ci mbir mi. ban appel ngay lancé artistes yi. waaw li may lancé artistes yi rek moo la ñoom ñëpp nañu ñëw jàpp ci mbir mi xam ne IDAK nekk na loo xam ne IDAKu ñëpp la ndax loo xamante ne dañ na la pour yow sa aar la pour aar la pour ëllëg tey ak ëllëg kon yaakaar naa képp ku ko dégg war nga mën a daw si ñëw jàpp si mbir mi mu doon loo xamante ne nag duy caaxaan parce que euh, suma mbokki artistes yi lenn da si bari. da ngaa gis kenn kaa xamante ne day dem ba feebar ba sonn door ne waaw waaw waaw ni fekk yow waroon nga mën a teel a jóg ci mbir moomu avancé si ba nga xamante ne bu subaa lu mën a ñëw mu jariñ la ndax tamit li ñuy wax moo la nit ka nekk soxla nga ndimbal moo xam sa poos diis na moo xam sa poos diisul ndax même man nga am xaalis soxla ndimbal ci beneen anam foo dem si artistes yi am na ñu stable am na ñu stablul am na ñu yor am na ñu yorul am na ñoo xam ne soxla wu ñuy dara na mu ñu dara am ñoo xam ne nam nañu dara kon donc nag dañu bëgg na ñëpp a maase loogu moo waral ñu créer IDAC pour que ñëpp mën a maase waaw ndax ñëpp yemuñu. maa ngi nuyu ñëpp di nuyu téléspectateurs yi ñuy seetaan maa ngi tudd Aïda Dramé artiste comédienne nekkoon Daaree Kocc. théâtre bari na jafe-jafe de. bari na jafe-jafe torop parce que déjà li ci li ci li ci gën a metti mooy euh, amul xaalis amul xaalis metti na boo feebaree des fois pour nga faju problème la ñu bari dañuy feebar ah, man nag yàlla dogal damaa ngi sant yàlla xëñ na feebaroon naa mais suñu borom suturaal na ma kenn xa sax sama feebar Euh, mais gis naa ñoo xam ne dañ ci yàgg ay nit yoo xam dañu yàgg bégal nit ñi nit ñoo xam ne dañu yàgg kontaan loo nit ñi sonn ci aar bi ñu yàgg ci lool lu bari feebar ma dégg ne dañoo sonnoon nekk hôpital amuñu ku leen dimbali kenn du leen dimbali kenn du leen jàppale ba ba ma dem ba gis si ñoo xam ne dañuy ket pour ñu jàppale ki feebar loolu dafa ñaaw dafa nekk loo xam ne rafetul parce que artiste mooy artiste wi ñu ci bari tey am na ay kilifa yoo xam ne macha allah dañu dañu bëgg artistes yi ñoo artistes ñoo leen di bégal da gis nit feebar tëdd hôpital di seetaan théâtre bu ko reetaan bu seetaanee théâtre théâtre moo koy kontaan lool théâtre moo koy bégloo théâtre euh, mooy tax mu mu mu kontaan daal mooy tax sax mu feebaram mu tane donc man pour man euh, artistes yi Euh, waroon nañu yor waroon nañ leen di dimbali di leen jàppale néega ni artiste yu ci bari waroon na fekk ñu am kër artiste war na am kër artiste war na am oto ñu jox ko gëddam euh, mais des fois nag man li ma jaaxal xaw man xaw ma nu mu demee peut-être dafay féete côté xaw ma lan la xaalis bi euh, parce que damay gis am na ci ñoo xam ne xëy na tamit am na loo xam ne wërsëg la chance laa parce que am na ñoo xam ne def nañ ci ay ati at amuñu ci kër amuñu ci oto mais am na ñoo xam ne ay fukki at ay fukki at juróom wala lu ko ëpp te amuñu ci am na ci ñoo xam ne dañuy ñëw dugg ci aar bi euh, même pas un an suñu borom suturaal leen ñu am ci kër am ci oto am ci teraanga xëñ na lool tamit wërsëg la chance la yàlla mooy maye yàlla mooy joxe waaw euh, sama xalaat xëñ na nag ku war a am di nga am même ci aar bi fii suñu borom ku ku yàlla suturaal rek moo fi nekk kon li ñuy ñaan mooy yàlla nañu yàlla yàgg suturaal yàgg ñu taxaw yàgg ñu jàppale rawatina ñun jigéen ñi te wax réalisateur yi réalisatrice yi nañu dimbali artiste jàppale ñu te ñuy fay lu am solo te ñuy fay lu am maanaa ndax théâtre dafa métti ku ne xam ne théâtre neexul te yombul te lu ne lañ ciy dégg lu ne ndax des fois dañuy bool dañuy jaawale personnage ak personne du dëgg donc euh, yàlla baax na daal kon yàlla nañu yàlla taxaw ndax nit ki mën nga même bu du bi sax mën nga liggéey daan sa doole euh, ndax théâtre kese mënul yor nit mënul yor nit ndax des fois booy théâtre da nga ciy boole liggéey di jaay am ci loo yëngu bu ko defee suñu borom jàppale la mais comme li ma wax rek am na ñoo xam ne tedd nañ ci suñu borom suturaal na leen si kon nañu ñaan yàlla rek suñu borom taxawuñu jàppaleñ te ñu tàppe xol yi ñun ñëpp yi jéem a juboo ñépp nekk benn euh, ñu doon digg ñu doon ay mag ak ay raq waaw doon am ci am ci ay papa am ci ay yaay di joxante cër ku ci nekk topp ci gannaaw li nga xam ne moom nga war a topp waaw asalaamaaleykum wa ngi nuyu à travers euh, chaîne bu baax bi sen bu mag bi vraiment di man la l'artiste comédien di nuyu di ziar di vraiment ci nga ya ngi micro. bon dajé bi mom IDAG la IDAG bon association la bo xamanteni dafa pour dimbali kep kuy artiste comédien manam solo social mo ba artiste comédien nga am sa oto nga feebar faju te kenn du la ketal kenn du dem di la ñaanal doo ñaan ma sàmba doo ñaan ma dem ba vraiment association bi loolu rek moo ko tax a jug ñu woo yëpp nag di leen xamal ni lii képp kuy artiste comédien ku nekk ci àdduna be ku nekk senegal war nga cee def sa bopp war nga ko def sa yëfi bopp ñëw bokk ci biir ndax nag du loo xamante nii day euh, bokk comme ay arco yi ñu yaakaar na ay jalousie dafay ñëw di sa du loolu bokkul ak loolu bokk ak association boo xamee day ñëw pour promouvoir leneen

ñu def seen mbir seeni alal ci lii vraiment ci waa artiste yëpp nag di leen wax ne lii 1000 francs ñu ciy chaque mois bariwul vraiment 1000 francs ku ne mën na ko kon na ci ñëpp def seen fi bopp ku ci nekk loo def sa bopp nga ko defal ku loo ci waay def sa bopp nga ko defal waaw bon pour l'instant ñu ngi ci defa ci démarche papier yi comme ñu ngi ci démarche papier nag amagul ay këyit bon on peut dire que reconnaître que ñun xam nañu ñun suñu tet yi président xam nañu bu baax xam nañu def ñu yëfi caaxaan ñu artiste comédien lañ ñu renommé si Sénégal dootuñu ñu xool naan ñu kii mooy kan ak yooyu non non non kon dèjà ñun ci lu ñu bokk rek loolu dañ ko reconnaître te li ñuy def dañoo wax li ñuy def li ñuy def social la li ñuy def dañoo jóg pour jàppale képp kuy artiste comédien parce que li ciy xew gis ngeen ko ñun ñëpp gis nañ ko artiste bi day feebar ñu koy ketal di ko ñaanal ñenn ña artiste yi moom lu mu demee ni artiste bu ci feebar rek ñu lay jël di la ketal looyu noonu vraiment ça nous a loolu neexuñu loolu la ñuy xeex pour dootul am loolu la ñuy xeex pour mu denc artiste yi loolu nag artistes yi ñoo mën a di ñun liñ naan bay ci sa weewu tànk ñun ñoo ci war a jiitu ñun la ci war a njëkk képp ku ñu ci fekk fekk si ñu ci woo ministre bi di ci woo le président de bi république Macky Sall di ci woo Marème Faye sàll di ci woo képp ki nga xam bonne volonté nga te war a jàpp ci mbir yi vraiment ñu ngi ci woo tous les sénégalais xamal tous les artistes comédiens du théâtre Sénégal ñëpp ñu ngi leen ci bayiwu ñu kenn du yeuf ma Samba du ma président Tan du yeufam du sama du Cheikh Omar Diaw du yeuf Lébu Maram du yeuf ben

Nous euh, avons ànd avec euh, sama collègue de Seydou Nyan euh, moom it tamit centre d'appel de l'Agence nationale de la couverture maladie universelle ñu ñëwoon fekkee ci jotaay bii Nous avons invité par l'intermédiaire de Fodé Sarr vice-président de UDAC effectivement ñu saisir l'occasion de ne nañu ñëw waxtaane li nga xamante ne day dëppoo tamit ak sunu sas ndax euh, ku ne xam na ni programme bi ñuy doxal euh, secteur informel euh, dañ ci am place bu bu bu bu yaatu

ñu sant lim euh, ñi nekk ci euh, wàllu théâtre bi ñu gis ne kon ñoom invitation bi ñu def euh, occasion la ci ñun ci ñi leeral tànk bi ñu taxawee muy doon njariñ ci ñoom ñu waxtaane ko it sànq bi ñu jëlee kàddu gi tey feebar faju wax naa ko léegi jafe-jafe la ci bépp doomu aadama buy dund ndax euh, mucc amul ku ci mucc te wax naa ko sànq amul kenn koo xamante ne maqaamam àgg na ci xam ban bés lay feebar ségam euh, association théâtre euh, théâtre yi dañoo bokk ci secteur informel bi

Euh, nekk ci euh, présidente féminine ci UDAC waaw daje bi tey euh, li ñu fi tax a teew mooy wax ak askan wi wax ak population bi wax ak suñuy mbokk artiste pour ñu gën leen a ñaax pour ñu ñëw bokk UDAC ndax association bi dafa nekk association boo xamante ne dañoo bëgg dimbalante dañoo bëgg dimbali suñuy doomu suñuy mbokk artiste comédien macha allah muy union pour le développement de de de des artistes comédiens ñu yëngu ci social di yëngu ci développement di yëngu ci solidarité loolu yëpp nag bu buñ ko booloo mooy dimbal waaw bëgg daal artistes yi nga xamante ne ñu ngi feebar ñu leen di ñaanal ak a ketal loolu dakk looloo waral tey sunu teewaay fii loolu moo waral loolu moo waral aussi euh, wax dëgg neex yàlla euh, association bi daal bu ko defee ñaan bi jóge ci réew mi ñaan bi artistes yi bàyyi ko ñuy daan suñu doole di ñafe du dimbalante suñu biir pour artistes yi jëm kanam. est-ce que mën nañu xam lan mooy seen ay jafe-jafe. waaw jafe-jafe artistes yi moom bari na comme ni ko gars yi di waxee rek ndax am na ci ñoo xamante ne am nañu problème de santé am na ñoo xamante ne problème de location am na ñoo xam ne bari na daal bari na wax dëgg neex yàlla mais dañuy ñaan yàlla yàlla saafaral ñu ko looloo waral UDAG loolu moo waral association bi lépp loo xamante ne muy jafe-jafe danoo bëgg mu teggeeku gën a gaawee. pour ku ci nekk boo lambee sa poos daj ko ci. man la papa bu jaañ dëkk Thiaroye-sur-Mer di artiste comédien ñu gën maa xam ci El Capo waaw. est-ce que mën nañu xam lan mooy waral seen daje waa daje bi wax dëgg yàlla euh, xam naa ni lu mu la ci waxu rek kenn mënu la cee wax ndax action bi njëkk a yëngu ci man mii la njëkk a dal yàlla daa def euh, bi nawet bi ñëwee yàq sama néeg indi la yàq sama bagage yëpp ma estati ko ku ci mel ni Cheikh Omar Diaw daal di koy gis daal ni comme Idak jóg na. li nga xamante ne mooy njëriñ IDAK tey lañ koy wane fii wax dëgg yàlla ñu def collecte bu gaaw ñoom seen biir dajale xaas bari ñëw indil ma ko kon maanaam ñun suñu biir ñun comédiens yi euh, ñu jóg ni dañuy xeex li nga xamante ni mooy artiste bi feebar wala mu am problème ñuy di ko ket àdduna yëpp di ko yëg ñun ni ñun comédiens yi nañ jël xeex loolu commencé ko ci ñun keneen kuñ ciy fekk si fekk si wax dëgg yàlla loolu moo tax a jóg IDAK di ak euh, maanaam di association boo xamante nii nekk na association boo xam buure buute naa ak yeneen association yi ndax association bu nekk bokk naa ci ça n'a rien ak yeneen association yu bari ndax euh, nit ñi buñ ko jaawalee ak lu mel ni arco wala leneen leneen bii li muy dox maanaam ci social lay dox ak wan comédien fi mu war a teg tànkam ak ni mu war a demee itam bari nañu projet yoo xamante nii war nañ koo def maanaam ci début de deux mille 2023 bi ndax euh, dèjà rek am nañ programme boo xam ne ñu ngi ko war a def ak euh, fële ca Grand ak yenen ak yenen ak yenen señ bi ma ngi lay ziar man nga nuyo nga présenter au Sénégalais yi wax yaay kan. waaw euh, ma ngi lay delloo ziar bu wér euh, di nuyu mbokki euh, internautes yi ñi sétane yépp di nuyu sénégalais yépp di nuyu wa bitim rew di nuyu ne fi ci rew mi man nak ma ngi tuddu Abdou Lakhat ndjay ñu gën ma xam ci Tan Bombé nek président UDAC muy union pour le développement des artistes comédiens di yëngu ci walu développement social ak solidarité. pour les comédiens. est-ce que mën nañu xam lan moo tax IDAK jóg. waaw li tax IDAK jóg euh, juste que gis nañ ni association yi bien vrai que ni bari na fi euh, ci wàllu théâtre aussi yëpp am njariñ mais euh, amul bo xamanteni dina ci yëngu ci walu social. légui nak initiative bi nak euh, ñu ko amé ci euh bi nga xamanteni euh ñoo xit defoon na ben match bu non daf pata ak sew yi. après nag ñu ne groupe boobu nañ ko maintenir ba nga xamante ni dañ ci jàppalante moo indi social bi ak solidarité bi ñu nag nañ ci dugal développement parce que nag nu nous de des comédiens mais euh, dañoo war a développer noo war a développé wu parce que tamit euh, lan mooy indi développement moy ñu yëngu ci walu entrepreneuriat culturel benen bi aussi moy organiser des formations ci lolu euh, benen bi aussi moy euh, ndimbal na ca fekk loxol borom nan jappalante suñu biir parce que ku nekk ya jappalé sa bop li ñuy liggéey di ci amas kum new chaque mois ku nekk di cotiser comme ça ñu def ko benn compte bloqué pour 2 ans légui nak membre bu ci nekk lo fu cotiser yo yaa ko moom dëgg la nak nam kenn soxlawul. Euh, ñu di la ndimbali wala bis jot ngay laaj social ñaanuñu ko yàlla mais nag àdduna lépp day bette et que bëggatuñu benn artiste comédien bu nekk ci télé bi di affiché wu ñu naan dañ koy ketal wala di wax ci réseaux sociaux yi ñu naan dafa feebar dañ koy ketal wala dafa am problème nangam parce que ñun ñëpp xam nañ ni euh, dégg yàgg nañ ko wax ñu ne ici euh, au Sénégal laar nourrit pas Euh, man dama naan c'est l'homme qui ne sait pas comment se nourrir de son art parce que tamit euh, bu ñu organiser woo ñu structuré wu autorités yi ñëw jàppale ñu surtout suñu ministère tutelle muy ministre de la culture aussi au niveau de SODAV nga xamante ni Ngoné Ndour mooy PCA bi ñoom ñëpp nous ñu jàppalee ci association bi euh, gëm naa ni suñu métier liñ ci bëgg dinañ ko am muy comédien bu ci nekk ëllëg mun nga doon dara mun nga tabax dara mun nga yor sa kër mun nga am sa kër mun nga dawal sa oto mun nga am sa oto ci métier bi ngay def loolu nag am na ay xalaat yu ñu war a def muy lu jëm ci wàllu ay manifestation yu ñu war a def yoo xamante ni dañuy ut xaalis loo xamante ni aussi tamit euh, dañuy organiser wu jéem a euh, créer ay production parce que tamit euh, gis na ni producteurs yi bari nañ ci réew mi te comédiens yi rek ñoo ñoo ciy jouer pourquoi pas ñun mënuñoo créé ci biir UDAC euh, maison de production bo xamanteni ni euh, UDAC point théâtre lay tuddu nga xamanteni ni mu ngi sur YouTube ñuy produire pour mën am ay revenus yo xamanteni da fay duggat ci biir caisse UDAC. est-ce que mën nañu xam ndax mbooleem ñi nga xam ne ñooy théâtre ño bokk ci association bi wala. waaw euh, ñëpp xam nga mënu ñoo mënu ñoo bokk parce que euh, am nañu ko yëg am nañu ko yëgagul bo gisee ñuy def té débat bi. Euh, di organiser chaque mois parce que warna na le 12 février à le lébu mi lébu comédien bu Rufisque mom moo taxawal le 12 le 12 février à Rufisque dimanche. nak euh bëgg nañ artiste yëpp jot ci bëgg nañ comédien yëpp euh, jot ci bëgg nañ comédien yëpp ñoo adhéré parce que njariñu ñëpp la bien vrai que ni chaque comédien am nga say projet comédien bu ci projet, projet di dox muy man di ak mais c'est l'intérêt de tout le monde kon ñu tous les comédiens di tous les partenaires di les tout toute la population sénégalaise duo aussi toutes les bailleurs yi nga xamante ni parce que ont nañ ay carte d'honneur yo ont ñom lañ ko parce que débat bi y a beaucoup de gens qui participent participer nañ ci ku ci suñu président d'honneur ñukoy wax Allemagne moom mu participer ci xaalis bu bari te moom mooy président d'honneur IDAC ba pare lijjanti ay nen yeneen nit ay xaritam ñoo xamante ni presque li fi nekk lépp ñoom ñoo ko def aussi dugal ci biir keesu idak loo xamante ni macha allah euh, kon ñu ngi koy jaajëfal moom Souleymane Sow bu baax.